wis noonu gis ko moo ngi noonu di wis xorom ci oto yi ci jib bu gris bi ak euh, Ford bu noir bi ba tey mu ngi wis xorom di ko wër di wërale oto yi ba tey tamit xamuñu ama ban ban ban ban oto lay yéeg mais moom mu ngi wërale xorom si ci euh, ñaari oto yépp ba tey gis ngeen sécurité bi gis nga ma ngay wis gis nga ñu ngay wis gis nga wis ba gis nga wis ba gis nga ama ama ngoog ama ngoog waaw gis ngeen waaw kay ama dugg na moo ngi dugg ci oto bu ñuul bi ama ah nga ba tey ama ay gants la sol tey gants yu weex ama ngoogu dégg ngeen ko noonu mu ngi noonu dugg oto bu ba gis ngeen Pikine na ngoogu 100 pour cent Pikine tey 100 pour cent Pikine la ñu woote yéen ko gis ngeen noonu mag ndaw góor jigéen ah ñëpp a ngi daw topp Ama ñoo ko gisandoo noonu ba tey ak sécurité nag ba tey ñu gis fi sécurité bu mag oto police baa ngi noonu gis nga policiers yi commencé nañ génn gis nga ñoo ko gisandoo noonu xam naa dañuy wàcc rek ngir toppal leen affaire yi ci suuf bàyyi leen ngeen dund ambiance bi ba ci kanam ndax am na ñu ne ci digg géew bi euh, di bàkku yaakaar naa mbëri ndaw yi Pikine yi la waaw ñoom ku leen xam-xamee leen ambiance Pikine ku leen xam-xamee leen benno Pikine Pikinité man du ma ne banlieue dama naan c'est le bon lieu acca sa 200 pour cent Pikine 100 pour cent Pikine ñu xaar nag ba xam ndax ëmma dina ñëw ak ki nga xam ne mooy booy Niang 2 di leen fàttali rek amaa amaa ngi ci yoon bi di ñëw donc lii kii Falaye Baldé la ñu baleen ngeen dund tuuti ak ambiance Thank you. nekk Pikine yëpp di remercier les jeunes communicateurs traditionnels yi nekk na le président bi di Alé Fall ñoo ngi nuyu waa Pikine waa Pikine bi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu monsieur le maire Abdoulaye Timbo ñoo ngi nuyu monsieur le maire Issakha Diop ñoo ngi nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Thiam ñoo ngi nuyu Pape Gorgui Ndong kon jaajëf moom bis bi tey day ala doomu Fatou Ndiaye ñoo na sa jàmm yàlla jaajëf jërëjëf jërëjëf. ñaan képp nga xamante ni ñoom ñi sol ci sa t-shirt yu orange yi ñun ñoo stade yëpp taxaw fa waaye ku dul mbër ñëw fii nañu may tuuti ndax Jules mu ngi wër géew daw mais mais doomu Pikine a ngi noonu Del Piero Aziz teg tànk mais sëñ Mor. rek moom Modou Lo champion la fi rek moom da ngay indi état ndax Modou Lo athlète la waaw waaw làmb nekk na fii ci biir. Yeah. Amen. waaw bu jubuloo yaa mën yaa bu doole yaa neex a faral ay gone gu la moytuwul Mama. yaa ngi ma diis na lool ñii ñumu ñii ñumu laa ilaaha illallaah cey Dakar Media TV ndeysaan ndeysaan dafa mel Ama dafa wàññi poids Ama Baldé li may séeréer sax ak Ama Baldé li gis léegi baax jàmm la xale bi xaaral yëg par seconde macha allah hey Ama Baldé li baax jàmm la. laay laay la laa Eumeu noonu ñu ngi nuyu monsieur le maire ndeysaan ndeysaan li mooy Pikine ñoo bokk ndey ñoo bokk baay monsieur le maire ak mbëri yi bokk ndey ak ak képp ki sportif ak reporter ak

moom nag di ba sa topp lay jàkkaarloog Tapha Tine ndeysaan Eumeu Sène indi état de forme bu garaaw waaye su seen a jàkkaarloog waaye Ama Baldé ngi noonu Baye Mbaye ngi jooy ndeysaan Ama ngi jooy ndeysaan ndeysaan la ilaha illallah koy jege si tuuti rek ñu ko am ab appui bu baax. ma jege si kii bi la. la ilaha ba tàng na ba nga def ay mouvement moog Jacob ndeysaan mbokk ndey kay jur ndeysaan Ama Baldé ngi noonu ndeysaan Ama Baldé waay Ama pare na 100 pour cent ndeysaan Ama Baldé la ilaha naa ngeen déglu waaye tuuti Amadou Balde ndeysaan yëgal la yooyu Abou Jumbo la Pagaye Mbaye la ak Saliou Saliou Loum ndeysaan mbokk ndey ak kay jur xoolal su bébé ci ginnaaw ndeysaan waaw waaw ama waay laay laay la la ama dafa mobile dafa rapide ndeysaan ndeysaan ay lay la la dëggal loolu wayum jëwal la jëwal yëngu na sama yaram daw na am li ba jàmbal la ee eh, abu jubalu nga fa nga nekkoon nga <laughs> ndeysaan waaw waaw ndeysaan ndeysaan waaye giri baa ngi doon ci ginnaaw ndeysaan giri fàllaay ba Ama Baldé àndal Ceer mbokk yi waaye am maa ngi lay siyaare sama xarit la gën a cameraman Ceer da gën a reporter ndeysaan ay nit ñoo ngi doon si mbëru Pikine yëpp gis naa leen tey ginnaaw laa ilaaha illallaah ay motombo ay sadam ay la ilaha illallah ah, waaw waaw laay laax lu bees la loolu fedd bu bees la lii mooy lii mooy combat royal la ñu war a bëre lii mooy lan lii mooy war lii mooy di Modou Lo am nga problème laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah oho laa ilaaha illallah ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah, ah waaw waaw waaw waaw laay laay la la lii lu bees la ama lamb na ndel ba ndeysaan illallah xoolal ma Jules Baldé yaram ak tàng na da koy fàtte deru mbër la deretu mbër deretu mbër du ndey nelaw rek waaye bu yeewu nga xam ne yeewu na nday saan nday saan déggal loolu loolu ngeen sànq ba léegi ma ni tek li pakaay mbay tëggal ama li pakaay di tëggal ama moo neex rek moo tax ma ne pat moom di ko konos ak yéen mbokk téléspectateurs yi cey lii Babacar aalo na ndeysaan deret dafa fort oh Malo Seras aalu na Jules Baldé na Jacob aalu na ndeysaan deret moo foor li waaj naan noole daa foor waaye deret dafa foor laay la la laay la la ndeysaan ndeysaan ndeysaan la ilaha illallah ak a dégg xool la mu def rek ci Fenexxion laay laay la la waaw ama la ñuy indi waaw waaw cey laay lay la laa cey lii la ilaha illallah la la la la loolu lu bees la ndeysaan loolu Bagaye Mbaye da koo créé si diggante ñaari fan laay laay lala hey Bagaye Mbaye hey Ama Baldé hey dimanche dina neex ba jéggi piix cey bii la lamb royal Modou Lo am na problème Ama am na problème ndax dañoo war a bëggal mbokk ah képp kii bëggee lamb da ngaa war a bëgg suur boobu képp kii bëggee lamb da ngaa bëgg nam lamb ju neex kii bëggee lamb da ngaa bëgg rukkum daje gi

monsieur le maire Modou Gueye président et boy domaine mu ngi koy waaj a jox. avec les jeunes communicateurs yëpp. ndeysaan jëppal Ama Baldé drapeau Pikine. ndeysaan ndeysaan ndeysaan sama xel dama ne Sénégal bu dee football ñu dem Palais war a joxe drapeau bi ndeysaan sama xel foofu la dem tey ku ne xam ne Sénégal bu dee waaj football coupe d'Afrique wala compétition bu mun di doon président la République moo koy jox drapeau ba waaye tey lii Modou Gueye def. bëgg ko defal Ama Baldé ko jox drapeau bi kon yaakaar naa ne lii doy na waar lii mooy mbokk lii mooy Pikine yéen a bokk nday yéen a bokk baay autorité beeg politicien bi ab képp koo xamante ni da ngay dewu Pikine nekk ci gox wane lu baax jëfal lu baax ba wootoo rek am lii boo wootee rek mbokk xarit yi ñëw mu ñëw ndax baax rek a war a loo mën a am ak koo mën a doon doo wees kii moo baax te am. micro bi micro bi eh, jox micro Ama bi nga dugg see depuis 15 heures stade bi ñëw gis Pikine gis autorité Pikine gis say frère gis say sœur ñëpp def benn tànk topp sa ginnaaw tey bi nga dugg ci stade bi lan nga sa xol am lan ngay wax li nga xam yëpp dañuy déggee Ama te yaakaar ko loolu si waaw a a baax di di sant sama woon des nañ Abdou Karim Mbacke maa ngi ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm waaw yàlla na yàlla bàyyi ba wala mën a taxaw si Abdou Karim Mbacke. di gërëm sëñ Afia di sant sëñ Tako di sant sëñ Akem Mbacke baax a baax a baax maa ngi sant sëñ Akem xam nga sax sa Seexuna Mbàkke bu baax maa ngi koy siyaare waaw sa Seexuna maa ngi koy siyaare sant di ko gërëm di gërëm nag di gërëm njaboot Tiwaawan yëpp maam Mor Maale yi maa ngi sant waa Tiwaawan bu baax a baax di leen santaat bu baax di sant waa Kaolack di leen sant bu baax a baax di sant waa Laayeen yi waa Yoof xam nga waa Cambérène maa ngi siyaare bu baax a baax di siyaare Sénégal bi yëpp rawatina waa di gërëm sama dëkk sama dëkk mobilisation bi ama mel na ni Pikine sas nañ la Pikine yaakaar nañ la Pikine koo wax dalay wax ne ndam la ñuy jëli roi bi la ñuy jëli lan ngay dalale xelu waa Pikine yi nga xam ne dañu am yaakaar ci sël bi nga xam ne tey nekkatul sël waaw damay nuyu tuuti ma gërëm ku mel ni Lamine Naar borom état bi nga di gërëm Lamine maa ngi koy bu baax a baax di baax a baax maa ngi sant di ko gërëm ah di gërëm nag Abdoulaye Abdoulaye Sylla maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm Abdoulaye Sylla di daal moo taxawoo bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm nag ñëpp di gërëm Modou Gueye di gërëm Modou Fall Modou Fall président bi di daal mu taxaw bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm képp koo jàppale Issa maire de la ville ñëpp képp ku nekk fii rek képp ku ma ma tànn rek Issa taxaw na maa ngi ñaan yàlla na suñu borom defal jàmm yu wër jërëjëf di gërëm nag du ma gërëm sama maa koy sant bu a baax dégg nga nag gis naa lu ko taxaw bu baax bari dañ doon werante tey ndax mi ngi ci forme wala nekkul ci forme bi ma la gisee tey dafa mel ni gars yi yar nañ la métti parce que da ngaa jeex lan ngay dalal ci état de forme ci état de santé ba nga ni ñoom bu ñuy ñëw. dañuy ànd ak xel mu dal ak fit bu dal ak li nga xam ne mooy yaakaar bi man sëriñ. waaw loolu ma doon wax ci biir mooy tam. dafa am loo xam ne moo toog ay at bi ak xeexam. programme bi tam rek amul woon islam nañ ma toog xaar li ma war a def yëpp def nañ ko. man maa des man Amadou Bale doomu Falaye Bale man maa des. waaw waaw waaw. mu wax dara man maa des. dama la bis boobu yomb na góor am na góor lu mu dem mu yomb si moom bis boobu yomb na góor yàlla. ama ama dañu gis waaw écurie bi yëpp dañoo def ndel xool waaw ndel bi lu mu doon ak lu mu tekki ki wat gis naa ko ma laajal ko mais ama pourquoi ndel bi waaw am na mu gis lu ma des rek moo jël ñëpp benn noona lañ kii xam naa dégradé mu doon dégradé mooy cat xam na lu wàllu cat mu warul leen mu mu roxos bu def temps bi bu yàggee arrangé wul Ama Baldé ndax physiquement mu mu gën a taxaw Ama combat bu gaaw moo ko ci combat bi lan ngay tontu Sénégal yi ci loolu ndax nee nañ Ama Baldé mënul bëri combat bu yàgg combat à l'usure loolu naka nga ko préparé ak la nga euh, alors Ama li nga xam ne moom lañuy wax mooy bés bu mag la ñaari champion yu mag war ko daje ñaari gox yu mag war fa daje ñu bëri am njàqare ci wàllu violence ak lu ni mel ban appel ngay lancé ci côté boobu pour que ñëpp dal muy waa Pikine muy waa Parcelles ak ku mu mënti doon yàgg Modou Lo yéen a ndigaale bu ñu tëjee barrière yi yéen ñaar. la mu toog sama du jub moom li ma mën a yàqu moom moom laa doon jëm moom laa am teg ñoom. képp koo sànni xeer képp koo xam ne servante bi wala jëf naa baalu ma leen ko man man man man la ñepp man la ñaaxal bu ma doyoon ñu toog xaar dama ne la bis boobu yow mën a góor. le mot de la fin. ñu bàyyi la nga delluwaat ci entraînement yi parce que yaakaar naa ni fii ak boobu nit dootu la gisaat à part ñi ngay nekk. waaw damay sant yàlla di sant leen ñu bàyyi la sama àndandoo yi di sant sama àndandoo yi bu baax Lamine balaa ma doon tëj bëggoon nañ xam bu baax ndax dina fital jaar wuti Modou Lo loolu ñëpp a koy laaj ci ndax ndox dina bàyyi la sant bu baax xam nga dina gërëm bu baax sama àndandoo yi bàyyiwul na benn yoon xam nga su mel ni Maro Seras su mel ni Taba Abda Basba de Gaynde I'm a mover. I'm more than this. I'm not Tongo. Oban. Yeah, yes, my second is Baba. Come with Baba, Gusa, Abu, Ibrahim, Michael, Del. Del, my mother, Ba. You get him, you get him, uh, Alifa. My mother, Ba, Ba, Ba. Di gërëm Pape Samra di ko ñaanal yàlla suñu borom di gërëm waa Assane bu baax a baax waa Assane waaye sëñ bi waaw xam nga di gërëm waa Kolda di gërëm ñëpp xam nga moo tax ñu daal maa koy bàyyee ñu boo ñaaree yàlla suñu borom daal di gërëm nag Iran bu baax a baax kon ma la waxee comme moom maa ngi sant yàlla bu baax a baax. waaye gërëm naa leen bu baax a baax.